mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey ma indilati leen ab benn histoire bu doyati waar ma ne ko ca cey comme ni mu koy waxee àddina metti na te doy lii benn xale bu góor la xale bu góor bi nee na moom dafa nekkoon kër fame maanaam nekk ak papaam ak ki nga xam ne moo di benn frère boo xam ne ñoom ñaar papa lañu bokk. nee na nag moom bi mu gënee nekk xale dafa demoon daara dem jàngi. mais nee na yàlla dafa def en 2001 mu daal di ñibbisi fi nga xam ne moo di seen kër ginnaaw ba mu jàngee alxuraan ba mu wàcc mu dal di ñibbi seen kër en 2001 nee na ci noonu nag yàlla dogal mu fekkoon na demi frère boobu yàlla may ko benn soxna nee na soxna bi du sénégalais mais mu ngi dëkkoon na ci beneen réew boo xam ne dafa frontière ak Sénégal. nee nag bi mu ñëwee ñibbisi si nee na premier jour bi ko ndaw si gisee nee na ndaw si dane ko yow yaay diw mu ne naam nee na ndaw si ne ko yow de dama yàgg dégg sa tur ndekete yow la nee na nag depuis ce jour là muy en 2001 ndaw si daal di koy def xarit su ñëwee toog ak ay xaritam ci biir néegam di waxtaan sax nee na ndaw si ci boppam day daal di ñëw toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom lu nekk ndaw si da ciy dugg di def ay manière ak ñoom seen nee na nag comme papa mag la te kilifa la woon jamono yooyu nee na papa ji daal di gis action boobu ba pare daal di koy woo ba mu ñëw daal di koy mettre en garde pour mu def attention ci jabaru demi frère boobu nga xam ne dafa mel ni daal ba mu ko gisee ba tey dafa bàyyi ay yitteem yépp ngir moom te it bu toogee ay xaritam jabaru frère bi day ñëw nekk ci néeg bi di waxtaan ak ñoom papa ji nag comme mag la ndeysaan xam ne lii jëmul kër nee na papa ji daal di koy moytuloo ma ne ko ca cey xaaral ma naan sama kafe si neena ci noonu mu moytu ndax nag li ko papa ji wax moom sax commencé na cee bàyyi xel nee na depuis lors nag ndaw si topp ko di def ay manière di manière maanaam di ko charmer di ko xëcc ci boppam mel ni daal koo xam ne bu sañoon dafay daal di nekk ak moom nee na nag wax dëgg fa yàlla moom loolu du ay intention ndax nag kii mag la en sa jabaru frère la demi frère am nee na xalaatul di jël li nga xam ne moo di demi frère di sekk ak moom ay loo xam ne ndax rek ay bànneexu bakkanam nee na ndaw si nag moom wax dëgg fa yàlla yor comportement bu doy waar day ŋàppeeku ci kanamam di summeeku di def ay xeetu manière bu nekk ndaw si da ciy dugg nee na mais ba léegi daal yàlla dimbali ko xam na li ndaw si bëgg mais it yàlla dimbali na ko ba tombewul ci li nga xam ne moo di piège ndaw si nee na ñu dëkkee noonu dëkkee noonu ba am bis ndaw si ak yaayam commencé mel ni ñu koy sëriñtu nee na nag soo gisee ndaw si mel noonu maanaam ndaw si dafa bokk ci benn xeet boo xam ne ñoom dafa mel ni caaxaan defuñu ko muy dara maanaam di woo beneen góor ci xeetu caaxaan ñoom defuñu ko muy dara nee nag parfois ndaw si yaayam da koy woo ñoom ñaar ñu am fu ñu tase yaay ji yëkkati dara daa di koy jox nee na papaam lépp ci nekk mag liñ naan magum xamoon naa ko nee na papa ji di ko moytuloo ba pare nag daa di koy xamal ne ko defal attention bu baax a baax ndax kii ak yaayam li ñuy dugg ak a génn di joxalante di defalante man leer na ma ne ñu ngi sa kaw maanaam ndaw si bi mu ko wutee ba sonn dafa mujj jug dugg ci ay maaman te it yaayam moo ko ci doon jàppale yaayu ndaw si ne bi ko papaam moytuloowee gën koo moytuloowaat ne ko ñii daal wóoluwuma leen ndax nag yaay ji mi ngi mel ni saa yu fi ñëwee ay gàllaaj la koy jox te da koy woo ñoom ñaar ñu tase defal attention bu baax nee na moom it mu dem a dem ba wóoluwul ndaw si nee na moom it mu daal di commencé dugg ci ay sëriñ ndax nag aar nee na uniquement ndax ni ko ndaw si sonalee ndax nag ndaw si ci boppam dafa mel ni daal ku bëgg rek kut koo kut daal di sekk moom te jabaru freeram la mbokku internet di nee na muy daw ndaw si di daw ndaw si ba pare moom it mu jaral ko jóg ci ay sëriñ balaa ndaw si di ko na xelam ba lu mu ko defloo mu koy def te moom nee na wax dëgg fa yàlla xalaatul sekk ki nga xam ne moo di jabaru freer bi nee na nag du weddi jabaru freer bi jekk na trop ndax nag su fekkoon ne ñoom ñaar dañoo tase ci mbedd ana man yow amaana sax mu jël ko soxna wala it bu ko defee ay avance mu tombe ci piège waaye nee na donte jekk na ba egg ci lool mais nag jabaru freeram la non seulement diine mayu ko muy def na ko sudul noonu waaye ngoram it mayu ko muy sekk kii di jabaru demi frère am nee na yàlla def 2001 ba 2007 lépp jabaru frère bi mi ngi koy topp di ko wut ak di ko charmer nee na 2007 mu daal di jël soxna nee na bu mu jëlee soxna 2007 nee mu jàpp ne jabaru frère bi xëy na dina ko may jàmm mais nee na tey la waalo gën a aay jabaru frère bi ba léegi mi ngi continuer tentation yi ak di ko charmer xeetu manière ak di génne ay yaramam di ko ko won ak di def ay geste ba léegi taxul mu bàyyi ko nee na nag avant papam di génn àddina nee na jamono yi papaam génn na àddina mais nee avant papaam di génn àddina papaam woo ko ba mu ñëw dal di ne ko man am naa beneen pàkk maanaam beneen terrain ci dëkk bi te gis naa ne kër gi mu ngi commencé di xat ndax yow takk nga jabar yaa ngi am doom te sa frère bi aussi mi ngi ci kër gi ak jabaram mais nee na nag jamono yooyu frère bi jabaram jooju di ko topp amagul ak frère bi doom ñu ne papa ji ne ko dangay jël pàkk boobu nga tabaxi ko ndax bu ëllëgee man leer na ma ne kër gi yéen ñëpp du ngeen fi mën a nekk nee nag bi ko papa ji joxee pàkk boobu nee na yàggul dara papa ji daal di génn àddina nee bi papa ji génnee àddina nee na moom bi muy taawlu ak jabaram ji mu takk en 2007 nee na taawam bi mu am ak jabaram ji moo mag taawu ki nga xam ne moo di jabaru freeram bi ko topp ak freeram boobu. nee na nag xamul qu'est-ce qui se ndax am na benn jour am kum ko seetal ni ko soo gisee ndaw si topp la sa jëkkëram moom moo nekk koo xam ne dafa xaw a faible ci kaw lal bi looloo tax mu topp la nee na ndaw si nag yemalewu ko ci moom kese ndax nag ndaw si. da daan def ak ay yeneen nit ay yeneen nit ndax nee na avant papaam di génn àddina am na bis moom mu voyagé daa di génn fi nga xam ne mooy seen dëkk boobu dem beneen dëkk nee na bi mu demee mu yàgg fa bi mu ñibbisee boobu papa ji gaañoogul nee na ji daan ne ko lii moo taxoon manaan naan la nga moytu sa jabaru frère bi ndax gis nga jamono yi nga tukkee am na sa benn doom bu bàjjen bu fi ñëwoon gane si ndekete yoo ndekete yoo mi ngi sekk ak sa doom bu bàjjen bi naka su noonu ba benn jour sa frère da leen a topp ba jàpp leen ba dóor ko ci dóor yu méttee méttee metti xamoon naa ne genre yi moo taxoon mu lay ñooxu de moo taxoon ma ne la nga moytu nee na nag bi ndaw si defee loolu ginnaaw mu ñëw pàppa ji wax ko ko mu xam ne nag li ko papa ji doon wax yépp dëgg la ci ndaw si moo tax mu koy moytuloo nee na ba tax na bi pàppa ji gaañoo taxul ndaw si arrière continuer nekk ci kër gi di ko charmer nee na bu ne man palaa bi tey laa am envie lekk nee na balaa daaneel rek ndaw si day gaawantu même su ko amul dina ko wuti de gauche à droite pour toggal ko palaa boobu ndax rek dégg na mu koy jàmbat nee na uniquement pour wut lu ko neex ndax bu ko defee mën a sekk ak moom na ko sudul noonu waaye nag nee na bis ba mu gënee toog loo xam ne loolu laa bëggoon it man du tee ma topp ci li mu bëgg ndax nag alxuraan dafa fees ci sama dënn te it sama ngor mayu ma may sekk ak sama jabaru grand frère maanaam waa ji daal ndeysaan nee na jomb na di sekk ak jabaru demi frère nee na yàlla def na sax mu dem a dem ba am ñaari jabar moom waa ji actuellement nii nee na am na ñaari jabar te bu dee dëgg rek kay dëgg jabaru demi frère boobu moo dàq ñaari jabaram yépp ba di leen may mais nee na moom ci yar gi ak alxuraan bi mu jàng ak tamit jomb na maanaam tey même bu jabaru frère di ko wut ba pare nekk ku jongamu ku diriyanke moom xalaatul ci xelam di sekk ki nga xam ne moo di jabaru frère bi nee nag bi mu sonnee ci xam ne jabaru frère bi wax dëgg fa yàlla caaxaan rek la koy toppee depuis 2001 ba presque en 2008 nee na jabaru frère bi bàyyiwu ko nee na nag ci la dawee daa di jël kër gi nga xam ne moom la ko papa ji joxoon avant muy génn àddina nee na mu daal di gaawantu dem def fa ñaari néeg uniquement rek pour daw ki nga xam ne moo di jabaru demi frère bi ma ne ko ah kii moo am patience 2001 ba 2008 nga topp benn affaire rek ne doo ko bàyyi te pareegul de ñu ngi ci 2024 cey yàlla nee na ba mu demee dëkki fa ak ñaari jabaram ak yaayam nee na ba tey taxul ndaw si may ko jàmm nee na am na bis ñu amoon ay liggéey ci tool yi nee na nag bu fekkee ne jabaram yi ñooy toogu ñoom du ñu ñëw tool mais ndaw si plutôt mooy ñëw tool mais nee na jour boobu moom ndaw si rek ñoo nekkoon ca tool ba nee na ndaw si di yëngal ay feram ci tool yi di ko charme di ko def lépp mais nee na moom wax dëgg fa yàlla yàlla may na ko faalewul jabaru mag ji donte mi ngi koy topp di def ay keseng-keseng di yëngal fer yi nee na faalewu ko nee na li ko gën a naqari ci affaire bi nag mooy jabaru frère bi ba fii muy waxee ak yéen ñu ngi ci 2024 maanaam 2001 ba 2024 jabaru frère bi da koy tànte nee na am na bis bi mu xamee ne tuxu na dafa am bis mu daal di ñëw bi mu ñëwee mu dem ca kër gu mag ga daal di laajte aawoom ñu ne ko aawoom nekku fi nee na mu laajte yaayam ñu ne ko yaayam dafa génn nee na mu fekk fa jabaru frère bi kese nee na jabaru frère bi naka la xam ne ñoom ñaar kese ñoo nekk ci kër gi nee na daa di dem jël benn sër daa di koy woddoo ba pare wokk sër bi ba sër bi gàtt da nga xam ne bu kiyee rek da ngay gis awraam yépp nee na ba pare daa di wacc ay weenam muy lang ci ëtt bi teg nduggam naan day xoole nee na mu ne ko ku fi ne nee na mu ne ko fii de maag yow ak yàlla rek ñoo fi ne nee na jabaru freer bi commencé di ko charmer mais nee na bi mu commencé di ko charmer man ma koy éviter même pas deux minutes rek ma séen sama aawo bi di ñëw nee na bi mu séenee sama aawo bi di ñëw mu xam ne fii du fi baax la nee na mu daal di daw dem ca ba mel ni ku deful dara nee na ma ne ndaw si nag wax dëgg fa yàlla kii daal sub booxun ma ko nee na parfois damay toog di moolu ndaw si ndax nag dama ne kii daal seytaane la te it ku ma bëgg a def loolu ñaaw a ñaaw la moo tax mu toppee ma nii nee na ndaw si yemu ci parfois day nekk néegam comme par exemple bu ay soxnaam génnee nee na ndaw si daal dina fexe-fexe ba ñëw fa bu ñëwee daal di koy fekk biir néegam di ko ñaan-ñaan lu benn affaire te bu koy ñaan-ñaan lu benn affaire du ci yem maanaam da ciy boole di def ay manière di ko charmer waale nee na nag bu ko defee ci lay toogee jaaxle di moolu ndaw si ndax nag topp nit ki depuis 2001 ba 2024 di sàkku ci moom ay affaireu caaxaan ba léegi amagoo ko yow it nga ne doo ko bàyyi nee na ndaw si nag du moom rek la ko doon def am na ñu mu ko doon defandool ci dëkk bi mais nag ñooñu am na ñoo xam ne ba mu leen wutee amu leen daf leen a bàyyi mais moom la pourquoi jabaru frère bi ba léegi rek mënu koo bàyyi 2001 ba 2024 di ko topp ci benn affaire lànk rek ne du ko ci bàyyi doonte moom nag nee na ku ku mën amul ku yàlla dimbali moo am ndax nee na imagineel 2001 ba 2024 jabaru frère bi di tànte loolu ci moom amu ko nee nag xam na ne ndimbalu suñu borom la ko yàlla dimbalee waaye moom rek mënoon na cee bañ mucc maanaam heure bi fekk mu dal ci kawam bu yàgg yàgg yàgg nee na nag xamul lan moo tax ndaw si it teg ko bët nee na bu dee tamit ci wàllu wërsëg maanaam moom daal la yàlla gën a ubbil xeewal que freer bi nee na frère bi aussi amoon na benn jabar mais jabar jooju tamit dafa xëy rek daal di tas dem nee na xam naa nag sûrement ñàkkul ne li ko jabar jee li ko naqari woon ci freer bi ba jabar jee dem jabar ji loolu la ci gis mais nag moom tasul mais mi ngi ko topp moom freer bi pour mu sekk ak moom. nee na aussi li ko xaw a jaaxal freer bi depuis ba mu sëy ak ndaw si ba tey benn doom la am ak moom ca la yem te nee na doom boobu sax moom waa ji taawam moo mag euh, taawu demi freeram boobu nga xam ne jabaram da koo topp. te nee na jamono yi nga xam ne la freer bi di takk ndaw si nga xam ne moo ko sonal nee na boobu moom xaajagul bay takk jabar ndax booba mu ngi ca daara ja di jàng nee na kon est-ce que lu jabaru waa ji gis mu takk jabar yàlla may ko njaboot ci bu gaaw a gaaw a gaaw maanaam nee na année bi mu takkee jabar année bi ci topp wala sax avant année bi di jeex la taawloo ko aawoom bi nee na est-ce que ni ko yàlla mayee njaboot looloo tax tamit jabaru freer bi topp ko rek lànk ne du ko bàyyi ndax nag nee na jabaru frère bi benn doom bi mu am ak frère bi ay rumeur am na ci ñenn ñi maanaam rumeur yi comme ni nga yéex a amee doom parfois nga surtout nga njëkk a tas tas boo xam ne ki nga njëkk am amul doom rumeur yi dañ naan est-ce yow yaa jur xale bi walla déet. nee na nag wax dëgg fa yàlla loolu metti na ko torop moo tax mu indi ko émission nettali nee na beneen bi aussi moom parfois day am envie liggéey ba wàcc ñëw toog ak ñaari soxnaam ak yaayam teg ataayam toog seen biir waxtaan ak ñoom comme ni ko borom kër yépp di defee mais nee na bu dee dëgg rek kay dëgg jabaru freer bi teg na ko fitna xañ na ko jàmm xañ na ko ni mu defee vie de famille ndax nee day des fois day wàcc daan ne kenn ci soxnaa mi tegal ataay mais nee na bu tegee ataay ba ñu dajaloo ñoom ñëpp ci ëtt bi di waxtaan rek nee na jabaru freer bi day ñëw commencé di ko sarme di yëngal fer di def ay manière nee na ba moom dootu ko mën a supporter bu ko defee mu daal di gedd fi nga xam ne fa la dajaloo woon ak njabootam daal di génn ci biti dem toogi foofu ataaya bi buñ ko toggee ba pare foofu lañ koy fekk di ko jox kaas yi te nee na li ko gënaloon nag mooy wax dëgg fa yàlla mu toog ak fameem ndax nag jabaru frère bi sonal na ko mu ne ko ci ay waay 2001 ba 2024 moo lii mbaa jàmm la yéen internet yi nee na nag fi muy jeexalee histoire bi mooy nii nii ci vingt 2024 bi nee na dafa am bis jabaru frère bi comme mi ngi ko topp depuis 2001 ba mu takk fi ñaari soxnaam ba am ay njabootam nee na jabaru frère bi ñëw daal di koy avoué ne ko su ma sañoon man ak yow dañuy nekk nee nag bi ko jabaru frère bi waxee dafa bañ ba tëdd ca naaj ba ne ko nekkuma ak yow tey nekkuma ak yow ëllëg maanaam bañ nee na daal moom ci ci kàttanu yàlla 2001 ba 2024 te jabaru frère bi mu ngi ko toog mais nag yàlla dimbali na ko boobu ba léegi musul tombe ci piège ki nga xam ne moo di eh, jabaru frair bi daw na sax daal di profito sànceem eggagul mu dem dëkk ca uniquement pour daw jabaru frère bi mais nee na ba léegi bàyyiwu ko lu tax nag mu indi ko émission nettali comme bu njëkk ba da ko doon charme rek ak di ko jaay ay affaire di manière maanaam bu ko rombee mu toog sax nee na dina dof dof lu ba daw pour fer yi yëngu mu dégg ko nee na bu duggee ci kër gi aussi jabaru frère bi bu doon da doon nelaw sax dina jóg-jóglu pour di jaagar jaagari ci ëtt bi ndax mu koy xool nee na moom daal dafa seetlu fu mu taxaw rek faa jabaru frère bi ñëw di jaagar jaagari di yëngal ay feram wala fexe ba daw dawlu pour fer yi def keceng-keceng pour xelam nekk ci moom nee na nag bi ko gën a metti ba metti ko ba nga xam ne it yokku na tax mu indi ko émission nettali ndax nee na dafa am bis muy wirdu bi mu jullee ba pare di wirdu toog ci ëtt bi nee na jabaru frère bi war a xam ne kii nag wax dëgg fa yàlla lu ma saay saay saay saay naa ko bàyyi ndax nag mi ngi jaamu yàlla mais nee na déedéet jabaru frère bi daf ko romb ci ëtt bi fu muy wirdee di ko romb di yëngal fer yi di keceng kecengi pour na ko pour na ko bàyyi xel ñu ne wax dëgg fa yàlla nag parfois day toog di moolu jabaru frère bi daan ne kii vrai seytaane la te yàlla na ma yàlla musal ci moom maanaam comme ni nit di toogee di muslu ci saytaane nee na noonu lay def di muslu ci jabaru jas frère bi ndax nag kii seytaane boo xam ne la da ko bëgg a dugal ci yëfi iblis nee na nag weddiwul ne ndax DG laaj na ko yow tey jii bu yàlla tere kenn ñaanu ko yàlla mais lu africain yi di pratiquer la tey jii bu sa frère bi génnoon àddina ndax buñ la nee denc ko di nga ko denc mu ne du weddi ne moom bañul ndaw si ndax ndaw si wax dëgg fa yàlla jongoma la moo dàq sax ñaari mi mais tey jii bu doon dafa dajeeg moom ci mbedd war koo takk dina ko takk ndax nag bëgg na ko donte ni ndaw si di dundee amaana mu dundee koog moom mais nag la problème ko mooy lim leen wax rek ca njalbéen ga non seulement dafa jàng alxuraan mu fees ci dënnam diineem mayu ko mu def loolu même bu dul sax jabaru freeram am rawatina ak jabaru demi freeram am te it ngoram mayu ko muy sekk ki nga xam ne moo di jabaru euh, demi frère am nee na daal ba tax na mu daal di koy indi émission nettali comme ndaw si 2001 ba 2024 la ko mujjee avoué ko suma sañoon man ak yow ñu nekk mu xam ne kon vraiment li mu doon dute ci ndaw si ndekete dëgg la ndax da doon dute rek ndax ndaw si da ko doon charme rek maanaam musul woon a wax maanaam daal seetlu woon na manière yi yëpp doon na ko ko def mu naqari ko ba mu dawoon dem tuxu teewul mu koy fekk këram bu bëggee toog ak njabootam mu ko koy yàqal mais nee na à fin mujj na koo avouer ay sentiment am mais nee na ba léegi daal dafa bañ nanguwul ñu ne ndaw si nag li ko jaaxal moog yaayam lu mu ne yaay ji nekk ci lu mu bëgg it yaay ji da ko koy bëggale nee na moog yaay ji daal ñoo yem mais nag moom wax dégg fa yàlla instant bi xalaatul ndax yàlla dimbali na ko depuis 2001 ba léegi ndaw si amul li mu bëgg ci ci moom léegi nag nee na à travers émission nettali mu leen di laaj rek nan la war a def ndaw si ba gën a mucc ci ndaw si ndax nee na ndaw si xàddiwul bàyyiwul mbokku internet di 2001 ba 2024 ngay topp benn affaire ba léegi amagoo ci dara nga téye ma ne ko ca cëy yàlla am nañu am patience ay ca mi ngi noonu waa ji nag jaajëfal bu baax a baax li mu wax it yu am solo ku mucc amul ku yàlla dimbali moo am moom yàlla dimbali na ko ba léegi depuis 2001 mu gën a nekk xale ba tey yàlla may ko ñaari soxna mu am ci njaboot teewul jabaru freeram am mi ngi koy tànte mais yàlla suturaal na ko mucc na ci loolu loolu nag mu nekk fee boo xam ne wax dëgg fa yàlla ñu ngi ko ci encouragé bu baax a baax di wax rek bu jeunes yëpp doon def nii maanaam ñaawtee fi dina wàññeeku yit am na yoo xam ne comme ni mu ko waxee ngoram mayu ko ko te nit des fois da ngay yar sa bakkan te waa ji wax dëgg fa yàlla yàlla dimbali na ko te it muslu na ci seytaane ba tey yàlla dimbali na ko ba léegi ba mu indi ko émission nettali nee na parfois nag buy déglu nettali day toog naan ay man de maa gën a garaawle nee na ba à fin mu ne nu ko indi émission nettali pour nag mbokku internet di jàppale ko ci solution nu muy def ak jabaru mag yi ndax nag xàddiwul boobu ba léegi te sonal na ko xañ na ko vie de famille à chaque fois bëggee toog ak famille mu koy charmer ba noonu lay géddee jotaay bi daal di génn ci biti yaag yépp dañ ko koy fekkee ba ca mbedd ma uniquement ngir éviter jabaru frère bi ba tax na muy sàkku ci yéen conseil ak nan ngeen koy gën a dimbalee rek ba jabaru frère bi daal di koy may jàmm ci li nga xamante ne moo di tante yim koy tante ak charmer yim koy charmer ay ca mu ngi noonu mbokk internet di ku ko si mën a jàppale rek nga jàppale ko ci man nag mosumaa gis nit ku amee nii mille 2001 ba 2024 presque 23 ans nga topp ci benn affaire doy na waar mais nag waa ji moom chapeau à lui yàlla na ko yàlla jàppale wax dëgg fa yàlla jàmbaar la te góor góorlu na ba mucc ci li nga xamante ne moo di sekk ak sa jabaru grand frère ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal kanasatu la coréenne moo nekkoon na ci caméra bi di nuyu bu baax a baax suñu DGC Latir du ñu jeexal nag te du ñu remercier bu baax a baax suñu sponsor boobu di waa le Soigne gis ngeen ne saa su ne rek ñu ñuy accompagner ci seen kafe yu am solo yooyu lu ci mel ni régine café silagit kafe bi nga xam ne moom da lay soulager ci lépp sawar loolu bu dee jigéen ñi da leen rajeunir loo may leen ten yu rafet a rafet ba tax na ma naan ngeen dem a wuti rek li nga xam ne moo di silagit café kanta góor ñi ñoom dañ leen di proposer lii di pawo kafe pawo kafe wax naa leen bu fekkee ne da ngaa impuissant moom da lay jàppale ci li nga xam ne moo di sa wàllu nguura ba tax na ma naan leen a daw leen gaaw woo wàllu courant soigne ci 77 999 76 96 wala 76 374 78 98 bu ko defee di ngeen jokkoo ak wàllu courant soigne ñu proposé leen xeetu café bi ngeen soxla mu daal di leen di jàppale gunge leen ci seen wàllu wér-gu-yaram ay ca mi noonu di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneen i nettali d'ici la portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info ñu daal di koy terminer ak suñu café si la zit